Euh, asalaamaaleykum Sénégal ñi nekk fii ci réew mi ak it ñi nekk bitim réew ñu amaat euh, mbégte dajewaat ak yéen fii ci beneen waxtaan bu ñu nam ma amaat ak yéen di ko tàmbaleewaat toujours rek ci période bi ñu nekk muy Covid oblige di delloo njukkal suñu waa kër docteur yëpp. ak euh, force de l'ordre yee ñi nga xamante ne vraiment xar nañ seen tànk tubéy ngir Sénégal nekk ci situation bu jafe waaye ñu am lu bari luñ ci maîtriser di leen dellu gërëb di leen dellu sargal di jaar ñëpp ñi ci dëddu seeni mbokk di ñaan ñëpp ñi nga xamante ne tëral na leen yàlla fëgg seen bopp euh, ñu jóg ci ak jàmm ak salaam di wax rek ne waxtaanu tey bi di ko wundu mooy orange encore orange encore lu tax parce que le 22 juillet bii ñu weesu dañu def journée boycott bu massif Sénégal yépp adhéré ci biñ ko defee ndax dañu seetlu ne kat waaw ñun Sénégal réew moo xamante ne la nit ñi amuñu doole rawatina ci yenn gox goxaat yi koom-koom bi demee wu fa noonu ñu toll ci situation bu Covid sénégalais yi seen bokk ci lu ci ëpp ca ñu am dajale seen koom-koom jébbal ko nguur gi pour mu wàññi jafe-jafe yi. waaw ci jamono bu toll noonee jafe-jafe yu bëri yu bëri ba toll noonee naka lañ mën a gis opérateur télécommunication boo xamante ne mu bokk na ci ñi ëppale abonné di xëy nam daan defee ay tarifam mu jël ko maanaam doublé ko pour gën a mën a teg askan boobu noonu coono ñu ne mais vraiment lii dafa doy waar lii ëpp na lii xel nanguwu ko. ñu jóg ci tàmbali ci ay waxtaan mooy waa euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore boycott orange jox ci ay jéego dem rencontré ci ARTP dem rencontré ci waa orange jëm cee waxtaan daal xool nuñ ko saafara en ñu teg ay plan d'action yu tombe yu deme ni que boycott na ceeg ay yanamaar ci yeneen société civile bi ñu gis que ne bi mu amee orange ci boppam moom àdduna def conférence de presse di ñu mbëllee di ñu ñaawal di ñu xamal ne moom position bi mu téye fa la téye te fas yéene wàcc kenn mënu ci dara ñu defaat beneen journée de boycott président Sénégal Macky Sall woo directeur orange ARTP jox leen sommation orange continué waat di ñu ñaawal ne moom la mu jógoon la mu defoon du ca jóg ñu ne déet na mu indi ay coppite non seulement pas seulement pas ca lañ ko doon xaar mais ay coppite ca nam ko arrangé moom maanaam ca la fa newoon ñu koy wax mu indiwaat ko mu ne boo ko indiwaat li ma indi ma lay teg te loolu laa leen di imposer par force da ngeen koy nangu par mu jël loolu ba pare tegaat ci yeneen yoo xamante ni ñu laaj ko ko soxla wuñu bi loolu amee ñu gis que ni organe bi nga xamante ne moo fi ne war a réguler a yemale ñi ñu jëm ci wàllum xarale yeeg ñoom seen ñoom ñoo mujjee soppaliku entre guillemets ay agent marketing orange di défendre orange ay tarifam yu bees muy ARTP ARTP mooy defal orange promotion ci tarifam yu bees yi maanaam tey boo ubbee surtout ARTP yow da ngay fekk ARTP ñoom daal ay agent commercial orange lañ ñoom ñoo koy defal communication am pour défendral ko produit am défendral ko ay tarifam yu bees kon y a un problème mais sincèrement y a un sérieux problème parce que encore une fois ñoom Orange seen bopp ñi ngi def une désinformation ñi ngi wër di wax ne ñi ils sont à la solde d'autres euh, réseaux télécom machin mais c'est faux c'est faux beneen argument bi ñu joxe mooy waaw yeneen télécom yi fi nekk ñëpp tubaab yee ko moom te ñun suñu bos au moins am na am na une bonne partie plus de vingt cinq vingt six pour cent yoo xam ne Sénégal la ko moom na Sénégal moom mille pour cent de orange na Sénégal moom mille pour cent de orange bu fekkee ne da nga nekk un service publique moo xam sénégalais nga moo xam tubaab nga moo xam japonais nga soo respecté wul askan bi askan bi day génn jëloog yow yéen waa orange seen communication boobu ngeen def à l'encontre de ces sénégalais là yi nga xamante ne seen ay clients lañ pour la plupart jóg taxaw di waa leen wax di leen fàttali ne leen li ngeen leen bëgg teg attanuñ ko yéen ngeen wëlbatiku au lieu ngeen satisfaire seen ay besoins ngeen di def ay désinformation en disant que non ñun sax société sénégalaise dañ à sa vingt six pour cent xaw ma quarante pour cent nangama nangama nangama c' est pas un problème de sénégalais ngeen c' est de bu dee sénégalais ngeen c' est encore s'il y a un gros pourcentage de orange bu Sénégal moom parce que c'est encore pire kon pourquoi vous ne respectez pas ces Sénégalais là yéen ngeen ne Sénégalais bi moo leen Sénégal am na ci ay pourcentage bu yaatu kon pourquoi vous ne nous respectez pas pourquoi vous ne nous respectez pas ñun les consommateurs nous ne sommes pas motivés par xeex orange pour xeex ko nous ne sommes pas motivés pour soutenir quiconque non orange da fi nekk un service publique mu bëri ay abonné bëri ay client clients yi ils souffrent yi dañu sonn clients yi attanuñu leen leen teg loolu moom moo waral ñu jóg di ko xeex bu ko keneen defee noonu lañ koy defee bu ko keneen defee itam noonu lañ koy defee waatee loolu dañu bëgg mu leer ngeen comprendre point boobu noonu c'est pas contre orange c'est pas contre mango c'est pas contre pomme c'est contre le principe que du ñu nangu aucun service public nekk ci réew mi di foye clients yi di foye waa réew mi di nasaxal waa réew mi di resal poos waa réew mi di def ay bénéfice yu exorbitants di ko yóbbu ci ay réew tubaab di dem di toog duñ ko nangu ce que vous faites aux Sénégalais vous ne le faites pas aux Français ce que vous faites en Afrique de l'Ouest vous ne le faites pas en France seen chiffre d'affaires defu leen ko feneen furul fii loolu lañ wax ne dafa doy respecté leen Sénégalais yi loolu lañ leen wax bu nekkee ne léegi nag ARTP nag moom cellule de communication orange la ñun xamatuñ ci mbir moomu dara looloo waral askanu Sénégal xeex bi du ay état moo koy xeex parce que état bi wane na limitam état bi Sénégal a fini de montrer ses limites l' état du Sénégal a fini de nous démontrer de nous montrer de nous prouver de nous confirmer que nous n'avons aucune autonomie en de télécommunication amatuñ ko moomuñ suñu bopp ci dara télécommunication ça ne nous appartient beneen bi mooy agence ba mu teg agence boobu noonu instrument la aujourd'hui qui sert à Orange de communiquer ci ay tarifam yu bees vous vous rendez compte ARTP qui fait une conférence de presse pour parler du nouveau tarif d'Orange di ko di ko di ko valider en fait di valider Orange ay tarifam te moom nekk mu nekk organisation mu nekk agence de régulation mais c'est hallucinant c'est hallucinant on va droit droit droit dans le mur Nous, Sénégal, c'est mort, quoi. C'est mort. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Kon nag askanu Sénégal xeex bi ñoo koy xeexal suñu bopp ñoo koy xeexal suñu bopp président bàyyi na loxoom banku na wañaar nañu loxoom dem na sax seeti Macron xaw ma lu mu fa wax ak Macron intéressé wu léegi it ay milliards bàyyi problème mu Sénégal yi bàyyi jafe-jafe yi bàyyi ñi ci mbënn mi mais ki nekk ci mbënn mi nekk ci biiru ndox mi nekk ci jafe-jafe yi am suuf lekk nga bëgg koo jël yokkal ko lu muy wootee téléphone def ko ay somme yu exorbitante mais kooku mënu ko mais sénégalais boobu mënu ko orange boo nekkee Sénégal un pays sous-développé un pays bu amul ay moyens da ngay adapté wu ci pays boobu noonu ni mel da ngay adapté wu ci jafe-jafe réew moomu noonu réew moomu noonu nekk ci nawet nekk ci ay côté mbënd yu la waroon sax xëy di def ay journée free free call parce que xamoo fa ay urgence di am ci réew mi da nga waroon mettre à la disposition de ces Sénégalais là ay numéro vert yu ñu mën a nekk fii lañ nekk ok soo defee lii mun nga composé lii mu nga def laa ni seen poche rek ay milliards rek ay milliards rek yéen foqale rek foqale rek wan rek warax rek lekk rek du du sotti du sotti que ce soit vous que ce soit cette agence de je ne dirais pas je ne dirais de régulation cette agence ba leen di favoriser li yéen favoritisme la ñuy état du moo tax dinañ leen wan suñu dogu ñun waa Sénégal dinañ leen wan suñu jógu dinañ leen wan suñu fulaak suñu fayda looloo waral sama gars yi suba incha allah suba talaatay orange la suba talaatay orange la boycott massif mais boycott bu musul am il faut que ñu def ko boycott bu musul la am bu rëy un million de sénégalais mun nañoo boycotter suba c'est possible très possible wax nañ la ko neneen la soo boycotté fayal sa téléphone comme ça doo wuyu doo woote doo jënd crédit doo yónnee Orange Money doo jot Orange Money doo jot SMS doo envoyé SMS boo ko mënul ba mënoo ko tegal téléphone bi nële utal beneen téléphone def ca beneen piisu keneen yaa xam ku mu doon soo amee appel boo xam ne urgence la nga woote ca sa répertoire am nga ko jëlal sa répertoire nga woote numéro ya nga xam te ne mënoon nañu ñàkk woo ci bés bu bi ci bésu ëllëg bi solution la beneen solution bi defal portabilité jógeel orange nga dem feneen en conservant sa même numéro mën na nekk c'est très possible li laay war a soli gars yi suba boykat bi fokk ñu jëmmal ko ci côté bu ne fokk ñu jëmmal ko bu baax a baax a baax parce que nag monopole bi orange am ci réew mi dafa ëpp loxo te bu jàllee te bu jàllee dina garaaw lool ci Sénégal bras de bi ñu nekk di def ak orange bu ñu bàyyee orange mu réussir ko mu nangu ko suñu bàyyee orange mu gagné dinañ souffrir trop on va se retrouver demain carte crédit yi dina gën a cher ay séddoo la xaw ma dootul am yeneen forme la ñuy indil parce que dañuy essayer dañuy essayer c'est les colonisateurs c'est les colons ils essaient dañuy ñëw talal la bant ne la ko yii dañuy ñëw pour évangéliser leen wala ci moo xam après xëy suba indi leen c'est des colons ils nous bouffent ils nous sucent ils nous exploitent ils ne pas il faut que ñu xeex ko loolu ñun ñoo koy revendiquer ñu ñoo koy xeex nguuru Sénégal mënu ci dara parce que banque na loxoom ARTP banque na loxoom nañ ko xeex pesum kanam la nit moo koy fajal boppam li laay war a soli suba massivement massivement kaay leen ñu boycotté suba ñoo leen ñu boycotté boo bëggee yónnee xaalis seetal keneen koy yónnee jaaral feneen nga yónnee fa xaalis ku lay yónnee xaalis tey jii woo ko ne ko yónnee ma ko jaarale ko feneen il faut que ñu am cette compréhension de la chose tant que les gens là tant que ces gens là de Orange ils se réveillent pas demain ñu gis que bu ñu doon jaay mille cartes par jours jaay mi sax deux cent du ñu reculer ñoom et yow mii naan garaawul kenn xafoor dina ko def non Alassane dina ko def non Aliou Sané dina ko def man garaaw bàyyi ma jël sama téléphone rek yow yaa ñuy lor il faut que ngeen adhéré il faut que ngeen adhéré ci boycott bi arrêté de dire garaawul kenn def na ko man bàyyi bu ma ko def ñëpp am ay business yu ñu réglé ñëpp ay xaar ay appels yu important suba ñëpp ay xaar peut-être même envoi d'argent bu am important suba mais sacrifice su 24 heures boobu noonu moo lay dimbali nga mujj lal abat mais soo bañee sacrifié wu suba. coono bi dinañu rattrapé waat encore ginnaaw suba ak ginnaawaat suba ak ginnaawaat suba mais nga takk sa biir benn fan fay sa téléphone wala teg ko nële bañ koo wuyu ku la oo munoo koo nakk jël nga jël beneen numéro ooyee ko ci mais yow daal bul dugal cent franc ci compte orange kooku dafa am solo ñu def ko suba loolu moom moo ñu dimbali ñu génn ci insha allah rabbi parce que bras de fer la bras de la état bi waroon jouer rôle arbitre par na xam nga ngay xeex ak nit ki war a arbitrer far c'est le combat du peuple sénégalais ou bien des clients de Orange contre Orange l'arbitre qui devrait être l'État du Sénégal a pris position jël na part moom Orange la faral jëlal na ko part ànd naa ak moom agence am bi war a toog pour réguler defal na moom Orange conférence de presse pour di ko tagg di ko magnifier di ko di ko yëgleel ay prime di ko xalamal ay prime di ko di ko di ko di ko di ko wëyal di ko yaataa yumbeel noonu loolu kon kan la ñuy xeexal orange ak la ko wër ak ñu mu àndal muy état Sénégal bi nga xamante ne amul indépendance ci dara moomul boppam ci tous poupée marionnette caaxaan situation bu tar sénégalais yaa ngi ci biir ndox mi ci biir mbënn mi nga dalaas nank dem Paris lebi ci ay xaalis pour sa terre bi nga xamante ne à la nekk depuis six mois loo fi inauguré woon ci début élection yi ne inauguré nga ko terre bi pare na dugg ci ànd ak sa njaboot dox ba fu la neex xaw ma Pikine xaw ma Rufisque gaare ne woy teer bi nangam nangam caaxaan kese caaxaan kese xaalis bi orange bi liggéey par bés xaalis bi orange bi liggéey par at muy jaar ñuy suulaamee comme sax di dem France comme ça ñu koy perte nii comme sax parce que amuñu fula parce que suñu nguur gi liggéeyul parce que suñu nguur gi amul détermination amuñu amuñu cran amuñu courage mais vraiment amuñu amu leen courage quoi mais vraiment nguur Macky Sall mais vraiment li c'est grave quoi nga teg sa agence ne moom mooy réguler sa agence boobu noonu amul fulawu wax orange bàyyi li ngay teg client yi mais kon loolu lan la mais une agence de l'État qui n'est pas capable de demander à une société d'arrêter de sucer le sang des Sénégalais loolu man kon agence boobu jarul elle n'a pas sa raison d'être lan mooy rôle ARTP mais vraiment lan mooy rôle quoi. kon nag ñun askanu Sénégal duñ toog di ko seetaan te bii yoon ci boycott dafa ànd ak beneen coppite coppite bi mooy comme Covid bi dafa tax ba mu mënuñoo def rassemblement ba ñu bëgg Orange ñoo la gën a xam ne bu rassemblement mënoon nekk million de di dinañ ko gis ci dëkk yëpp Sénégal bi yëpp la ñuy gis Orange ñoo la ko gën a xam Orange moom ñi ngi ñaan ñoom rek ñooy ñaan corona continuer parce que ñoom xam nañ ne bu du woon corona tarif bi changé nañ ko y a deux parce que kon gars yi gën nañu assiégé fépp fu orange nekk ci Sénégal ñoom ñoo la gën xam loolu moo tax coppite bi suba soo boycotté ba noppi par juróomi personne jël leen lettre bi mu ngi ci biir situ Y'en a marre ngi ci situ waa orange boycott mi ngi aussi ci page Y'en a marre yi page Facebook yi page waa orange boycott mi ngi sax nii fii ngeen koy seetaanee nii dinañ ko fa dugal léegi nii jël leen ko ngeen tiire foo munti nekk ci Sénégal fu agence orange am parce par juróomi nit ngeen dem déposer ko c'est une lettre déposer ko demain mais demain à partir de dix-huit il faut que waa orange et leur direction se retrouvent avec un million de lettres comme ça c'est ça l'objectif les gars il faut qu'ils se retrouvent demain avec un million de lettres comme ça bu dee da ngeen cinq personnes rassemblement par benn nit ngeen di dugg le matin mu ngeen recevoir xam nga nit ñi da ngay xëy suba dem ci agence bi pour régler say soxla yow xëyal dem sa soxla mooy nga déposer lettre bi xëyal dem sa soxla mooy nga déposer lettre il faut que ñoom ils se retrouvent avec un million un million de lettres suba c'est très possible les c'est très possible cinq minutes booy xëy liggéey sax cinq minutes rombal rek nga dem déposer lettre bi seen biir boîte à lettre nga dem jox leen ko ñoom ñu yor il faut que ñoom ñu yeewu gis lettres yi nii il faut que demain 18 heures que waa Orange ay 1 million de lettres comme ça lettre bi gis ngeen ko mu ngi doon disponible na ci biir live bi fii mi ngi ko fi gis ci biir Facebook bi ci Facebook boycott Orange et puis partout dina circuler ci Facebook tiire ko boo ko mënul soo ko mënee tiire yow ko mënul ko ko ko tiiree ba photo ba pare ngir bu ngeen la photo et photo bi poste leen ko partout bu ngeen mënee envoyé mais poste leen ko na nit ñëpp xam ne man de bésu talaatay orange ba bés bi ñuy dagg suñu buumu jàmm bokkoon naa ci Sénégal yi daggoon buumu jàmm bi ndax dem naa déposé lettre bi photo wu naa posté naa ko bu ëllëgee nga mun koo wan say doom wan ko say sët wan leen ne bi nguuru Sénégal bankoo agence ba mu teg nekk à la solde de orange à la solde de ñeneen ñeneen. ñun waa Sénégal ñoo ko xeex te bi ñu koy xeex maa nga ca woon sama lettre yi nii déposé naa ko jël naa ci sama photo kon Sénégal mbir mi leer na lettre bi mi ngi disponible partout mu ngeen ko gis yéen ñëpp li laa war a soli yi nekki suba boycott bi nag tey mi ngi tàmbali à partir de minuit jëmaat suba ca minuit ngir yàlla respecté leen ko ngir yàlla bokk leen ci ngir yàlla kaay leen ñu xeex suñu yëfa parce que bu dee nguuru Sénégal la pare buñ ñu ko xeexal su dee ARTP ko waslu àq la tudd waslu àq il faut que ku ne waslu àq ni ki suba dem déposer ji lettre bi jël ci sa nataal yónnee ko pour que ñu xam ne ëllëg bokkoon nga ca combat boobee kon waa Sénégal loolu la ñu indiloon tey ci waxtaan bi di wax ne que bi du jeex ndax bu ñu jógee ci orange dana am beneen compagnie bu ñuy saytu muy waa canal horizon canal horizon ñoom it li ñu nekkee Sénégal dafa doy waar tarif yu cher da ngay abonné cinq doo seetaan benn chaîne canal ay RTS ak yooyu RTS moom fexe nañ ba antenne bi sax boo demee biir Fongolo bi doo mën a seetaan RTS tant que jëndoo parabolu canal horizon nga fay parabole jënd décodeur fay encore par mois vingt mille francs mooy bouquet bi nga war a mën a seetaan trois chaînes wala ay ñu naan ay il faut que sénégalais yi ñu am fulla am fayda il faut que ces gens-là commencent à nous respecter société yi nekk fii ci réew mi consommateurs yi nekk ci jàpp ci ñu delloo askan bi ak yi seen àq kon à suba la boycott massif bu ànd ak dépôt de lettre ci agence orange fépp ci Sénégal foo munti nekk am na agence orange photocopier lii nga dem déposer am nañ boîte à lettres am nañ service de d'accueil am nañu service de jeune réception wala autre chose nga ñëw nga déposé fa lettre bi enveloppe ñaar dërëm lay jar photocopie bi ñaar dërëm lay jar fukki dërëm doo ko dépensé nga taal nank sa oto nga jël sa saret wala nga jël sa vélo wala nga jël sa jakarta foo mun di nekk ci réew mi wala nga dox ndax soriwu la nga fëgg nga dem nga déposé ko pour xamal orange nag lim ñuy teg dootuñu ko nangu ñun nag ñoo koy xeexal suñu bopp ndax pesum kanam la boo koy def nga immortaliser ko nga yónnee ko ci Facebook partout soo ko xamul foo ko def yónnee ko Facebook Y'en a marre danañ na ko posté waaye combat wu suba bi képp kuy sénégalais képp koo xam ne nii am nga yërmande ci sénégalais yi nekk ci mbënn mi ñu bugg leen tegaat encore coono yi jëndum téléphone jëndum crédit woote bu métti woote bu jafe ñëwal nga bokk ci xeex bi ne suba lii laa war a sóoli pour ñu mun a xeex lii ndax pesum kanam la te état du Sénégal banque nañ kon nag Sénégal lu fi jub lu suñu boroma lu fi dëng sama matadi la leen jox dox daje beneen i fan incha allah ñëwaat ci yeneen i waxtaan ci yeneen i yaatal jaa ngeen jëf wasalaam